incha allah aousubillah min alsheytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala man ursila rahmatan lil alamin basiran wa naziran wa daaciyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira ixwat al iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi ànd ak yéen ci siiratu rasul sallallahu alayhi wa sallam tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñuy jël surutu sulh alxudaybiya mooy sart yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëraloon digganteem ak yéeféeri màkk liñ njëkk a wax ñoom waa Quraysh pour wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam du dugg màkk xam ngeen sunu darsa passé ñoo ngi tolloon ci yonent bi dafa waroon dem umra ci makkatal mukarram ziyaare ji kaaba gi ba mu génnee ci place boobu ñu naan Xudaybiya la ko yéeféeri màkka encerclé ne ko doo fi dugg léegi nag charte yiñ tëral mooy wadul xarbi bayna al muslimina wa quraysh asara sanawaat tomb bi ci njëkk ci charte yooyu mooy na yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi xeex ak waa quraysh lu tolloog fukki at signaloo nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko daal fukki at yi yow yonent doo ci xeex ak waa Quraysh ñaareel bi ñu ne ko man jaa al muslimina min Quraysh yuraddunahu wa man jaa Qurayshan min al muslimina laa yalzimuuna bi raddihi xam naa tomb bi moom moo ci gën a reelu ñu ne képp koo xam ne ci jullit yi danga bàyyee ko ci jullit yi danga bàyyee ko ci jullit ñi wala nga dikk ñëw ñëw ci jullit ñi nga jóge ci waa Quraysh si nekk yéeféer nga ñëw ci jullit ñi di wane ne da ngaa bëgg a tuub ñu ne su boobaa jullit yi nañ la delloo buñ la nangu buñ la jël waaw bépp yéeféer bu bàyyeekoo Quraysh ñëw ci jullit ñi di wax yonent bi damaa bëgg a tuub bu ko yonent bi recevoir képp koo xam ne nag jógee na ci yonent bi nekk jullit jëm ci waa Quraysh nee na ñoom duñ ko delloo léegi xoolal ma sart bii rek ndax xel nangu na ko ndax ngëm-ngëm nangu na ko képp kuy jullit su jo bàyyee yonent bi ne dafa bëgg a nekk yéeféer dem ca yéeféer ya yéeféer yi nee nañ ñoom duñ ko delloo waaye képp koo xam ne yéeféer la bëgg a nekk jullit ñëw ci yonent bi ñu ne yonent bi da ngay jàpp ci loxoom delloo siwaat ko ci ñun waaye sart bi ñu bëri bañ ko déggee ci saxaaba yi yonent bi di ko nangu ñoom dañoo jaaxle waaye yonent bi moom la yàlla yónni moo xam ndax kenn du bàyyeekoo ci moom di dem di delluwaat ci yéeféer yi waaw ndax yonent bi xam na loolu moo tax mu nangu ko am na lu ko wér ne moom yonent képp ku mu formé ba pare képp ku xasa bàyyi yéeféer yi ñëw ci moom nekk jullit xam na ne moos moom ñu nekk jullit dootuñu delluwaat di nekk yéeféer ndax dóor nañ leen ba sonn génn nañ leen seeni kër gàddaay nañ jóge Màkka ñëw Medine kon duñu delluwaat mukk naan dañuy nekkaat ak yéeféer moo tax yonent bi nangu sart bi ñetteelu sart ci sulhu xudaybiya ñu ne yonent bi an yarji annabi min gayri umrati hadha al am summa yaati al amul muqbil ñu ne yonent at bi moom doo dugg màkk doo umra da ngay dellu ba beneen at bii di ñëw nga dugg màkk nga ànd ak say sahaaba ak say àndandoo ginnaaw ñun waa Quraysh bu ñu génnee màkk daal lay libéré dëkk bi yépp yow nga daal di ñëw ànd ak say sahaaba ngeen umra waaye aussi ñetti fan lañ la may beneen bi mooy ngànnaay yi nga yor ngànnaay yi duñu génn seeni mbar waaw fett yi tamit dañ leen di takk ci seeni xala lii daal lañ wax sart yi soo ko nangoo nga dellu soo ko nanguwul tamit di nga dellu parce que doo fi dugg lii nag boo ko nangoo ñu dellu ñu bàyyi la ba déwén bu déwénee nga ñëw daal def sa umra ba mooy ñetteelu sart mooy yonent at bii doo umra da ngay dellu waaw ba at mii di ñëw nga ñëw ànd ak saxaaba yi ngeen dugg màkka ñun waa Quraysh ñu génn dëkk bi abal la ko ñetti fan waaye nag na nga yëg ne waroo fee yor ngànnaay ngànnaay bu ñu génn ci seeni mbar xale yi tamit nañ leen takk ci seeni fet ñeenteelu sart bi ñu ne man araada an yadxula fi ahdi muhammad min gayri quraysh daxala fiihi wa man araada an yadxula fi ahdi quraysh daxala fiihi ñu ne yonant ñeenteelu sart mooy képp ku bëgg a farag yow ci dëkk yi la wër ah dugg ci sa contrat bi ñu siñenteeg yow tey na ci dugg képp koo xam ne nag dafa bëgg a farag yi féri tamit bismillah na dugg gis ngeen mbokk yi ñeenti charte yi moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangu waaye ñeenti charte yi keroog bañ leen di bind lu yéeme moo ci xew mooy ali yi moo ko doon bind parce que xam nga yonent bi umi yi la umi yi mooy koo xam ne mënta bind mënta liir baat boobu ci yonent bi rek la jekk keneen kuñ ko wax dañ laa xas yàlla nee na maa yónni ci ñi nga xam ne mënuñu bind mënuñu liir ab yonent wallazi baatha fil ummiyina rasulan minhum yonent bi rek la ñuy wax baat boobu muy tagg ci moom keneen kuñ ko wax rek xas nañ la jàngul te moo fi raw keroog problème bi njëkk am mooy gaay yi biñ ñëwee ñu wax charte yi saxaaba yi lànk yonent bi ne leen man la yàlla yónni ñu nangu yonent bi ne ali bindal bismillah yéeféeri màkka lànk ne kenn du bind bismillah ne ko buñ gëmoon yàlla duñu xeex ak yow ñàkk gëm yàlla moo tax ñuy xeex ak yow nga bëgg fee bind bismillah doo ko fi bind ci lettre bi ali ne man du sama loxo bi du bind bismillah ba pare ma koy effacé waat du ma ko def yonent bi ne ali fan la allahu gi toll mu ne ko fii la mu ne ko teg ci sama loxo ali jël baaraamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ko ci allah bi mu daal di koy effacé mu des bismi ah ñu ne ko dindil bismillah bi mu daal di koy dindi léegi lu ñuy bind ñu ne da ngay bind min muhammad yonent bi ne waan bismillah kon lettre bi sart bi min muhammad rasulillah ah gars yi ne ko déedéet déedéet bu ñu gëmoon ne rasulullah nga duñu xeex ak yow nañ dindi rasulullah gi nañ bind min muhammad ibnu abdallah ndax ndax gëm nañ ne loolu boobu moom am na ndax abdallah mooy sa papa léegi nañ bind lool ali ne man du ma bind rasulullah di ko effacé du ma ko def yonent bi ne ko fu rasulullah gi toll mu ne ko fii mu ne ko teg ci sa baaraam teg ci sama baaraam bi ali teg ko ci yonent bi daal di koy effacé ñu daal di bind kon sart yi ñeent moom la muhammad doomu abdallah d'accord ak waa quraysh mooy bañ a xeex ak waa quraysh fukki at képp ku jóge ci jullit yi dem ca Quraysh waa Quraysh duñ ko delloo si képp ku bàyyi ko Quraysh ñëw ci yonent bi dañ koy delloo at mii doo dugg màkk da ngay dellu ba beneen at nga ñëw ànd ak say saxaaba dugg màkk ñun waa màkk ñu génn libéral la màkk ñetti fan waaye sangaan naa yi nga yor bu ñu génn ci seeni mbar képp ku bëgg a farag yow ñeenteelu sart bi bu dugg ci sa contrat yow Muhammad na dugg ñun waa Quraysh tamit ku bëgg a farag ñun dugg ci sunu contrat na dugg li mooy ñeenti sart yi fa fa qabila alayhi salaatu wassalaam kullu haasi surut yonent bi nangu na sart yi ñeenti yépp julli ñi nag ndeysaan amal muslimuuna fa daaxala fa daaxalahum minha amrun azim wa qaalu subhanallah kayfa nuraddu ilayhim man jaana musliman wala yarudduna man jaahum murtadan julli ñi daal di jaaxle ne mbir mi doy na waar waaw yonent bi moom lii num ko mën a nangoo képp kuy jullit jóge ci ñun dem ci moom murtad ñu bàyyi ko ci ñoom képp ku jóge ci ñoom ñëw ci ñun ñun ñu delloo ko lii num mën a nekkee ñu commencé di ci wax fa qaala alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne leen innahu man zahaba minna ilayhi fa abadahu llah wa man jaana minhum fa narudduhu ilayhim fa sa yajcalu llahu lahu farjan wa maxraja allahu akbar keroog yonent bi lii la dalale xelu jullit yi mooy képp ku jóge ci ñun dem ci ñoom kooku de sori na yàlla kooku rek kooku yàlla dakaa nam ma soril boppam looloo tax muy jóge ci ñun di dem ci ñoom waaye képp ku jóge ci ñoom ñëw ci ñun danañ ko delloo waaye yàlla dina ko defal mbir yàlla dina ko defal génn waay yàlla dina ko leeral ay mbiram gis nga ñun tey fii la ñu wuute ak saxaaba yi saxaaba yi bu ñu amee jafe-jafe lu lëndëm ci ñoom bu leen yonent bi leerale rek jeex na dootuñu xëccoo dootuñu weranteeg moom dootuñu sikki sàkka dootuñu déngi déngi yonent bi wax na jeex na ndax moom la yàlla yónni yonent bi la yàlla yónni saxaaba yi ñëw ànd ak moom waaye tekkiwul ne ñoom dañoo war a jël ay ndogal ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yonent bi waxee rek ñoom ñu dégg mbokk yi sart yaa ngi noonu nekk ñeent waaye yàlla subhaanahu wa taala tawfiq bi mu def mooy képp ku tuuboon képp ku jógewoon ci ñoom ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam tuub yonent bi di la delloo ñooñu yonent bi doon delloo yëpp dañuy def dañoo dañoo lànk bañ a de dellu màkk nekk ci àll bi di def giriya ñu nekk fa mbooloo mu baree bari ñoom ñooñu ku jógee màkk rek ñëw ci yonent bi tuub yonent bi ne la déedéet delluwaatal ci say mbokk ca yéeféeree rek nga dugg àll bi fekki ñooñu léegi ñooñu mujj nañ nekk fitna ci waa màkk bu waa màkk génnee ñooñu koj leen duma leen kon gis nga yonent bi am na lu mu xamoon ñooñu léegi indil waa màkk fitna ba ñu ñëw ci yonent bi ne ko léegi gaa yi nga xam ne dañ doon tuub nga leen di delloo si ñu nekk fi ci àll bi léegi ku tuub teeku bul bul dellooti kenn bul dax kenn allahu akbar moo tax gis nga yàlla moom ay mbiram xel mënu koo peeg asa an takrahu shay wa huwa xayru lakum bëri na nga bañ dara fekk loolu nga bañ moo baax ci yow wa asa an tuhibbu shay wa huwa sarrun lakum bëri na nga bëgg dara fekk li nga bëgg baaxul ci yow li ko waral xam ngeen lan la yàlla nee na wallahu yaalamu wa antum la taalamun yàlla nee na maa xam xamu leen ñoom jàppoon nañ ne tey bu doon kenn ci ñun la ñu ne ab julit tuub ñu ne ko déedéet dellul ca yéeféer ya ñu ne laa ilaha illallah loolu de xel mënu ko nangu wallaay sunu xel mënu ko nangu waaye xoolal yonant ndeke yàllaa ngi namm def ci mbir moomu dara ñooñu di tuub mu neen leen dellu leen ndeke ñooñu dañoo dem ba ca àll ba formé fa benn giriyaa nekk ay rebelle biñ demee ba takku su waa màkk génne leen rek ñu koj leen duma nangu li ñu yor ñu mujj nekk fitna ci waa màkk kenn ñemetul génn fu ñu mujj mooy def délégation ñëw ci yonent bi ne ko léegi ñun ñoo waxoon lii waaye charte boobu moom day yàqu léegi képp ku tuubati téye ko fii parce que ñiy tuub nga leen di delloo egsiwut egsiwaatu ñu ci ñun ñu ngi ci biir àll bi nekk ay rebelle ba pare di ñu duma ndeysaan mbokk yi kon loolu mooy ñeenti sart yi moom lañ doon jël tey dars incha allah ci kàttanu buur subhanahu wa taala ba dimanche bi di ñëwaat ñu daal di eggali li des ci sulxu xudaybiya ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala mooy résultat yi ak njëriñ yi nga xam ne moom lañ ci war a tiire ci sulxu xudaybiya ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu jéggal nu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh